grand combat bi diggante Tidiane Faye Gouroup ak ki nga xamante ne mooy Tapha Gueye Sélé Batar ndeysaan tey ñu ngi fi ndeysaan ñu ngi nga xamante ne tey dañ ko jël suñu boo xamante ne fekk na ko fii ci Tëngéej ndeysaan. ndeysaan diggante Tapha Gueye numéro 2 Trafica ak Tidiane Faye ñaari xale yaa ngi bëre mag mu am caaj cay Moustapha Gueye doo nelew ñaanu la dara ca loo ko may mu yóbbaale ndeysaan mu ngay def ñami ñami comme yi mu doon def ci ñaa bu ndaw ndeysaan Moustapha Gueye da koo bàyyi xel bokk ci làmb ndeysaan c'est làmb waxul dëgg rek waaye na dama ne grand contre petit dafa xew mag ñi dañoo war a may xale yi sens Tidiane na teey Moustapha Gueye moo wax fa ngay toog acca xoolal Tapha xaj door na eh eh eh Tidiane Faye Moustapha Gueye Moustapha Gueye Tidiane Faye ngay xeex eh eh, eh. Moustapha Gueye waaye Moustapha Gueye mi décidé la de laa ilaha illallah hoo waaye Moustapha Gueye lu muy bëre yow kii waxut kenn banaa laak yàlla ay waay laa ilaha illallah Tidiane Faye jommi na nag Tidiane jommi noo xalaatut woon lii laa ilaha illallah desay ngele jo magatam jinne la oho magatam kororoj laa ilaha illallah non Tidiane Faye man fooguma ne lii mais Tidiane Faye defal ndànk Tidiane defal ndànk Moustapha Gueye même bu daanoo teen sax neex na Moustapha Gueye bëre na non bëre na tey non Moustapha Gueye a ngi def déplacement Tidiane Faye a ngi ko topp moo war waaw mais daa tëj bëre moom daa war a waaye nag. waaye nag gaw ma ne dina ko def eh Moussa Mbaye ngay door eh, eh door mu daanu mbaa du ci am eh eh, eh takk nañ Moussa Mbaye daju eh, ne dina ko def eh Moussa Mbaye ngay door eh mu daanu mbaa du ci am eh eh takk nañ Moussa Mbaye daju na Moussa